Euh, l'affaire remonte à il y a Mars deux 2021, ans oui. Euh, depuis 2021 euh, classe politique ñu ci bari surtout ñi rawatina ci nekk ñi nekk ci opposition bi dañ si jotoon a am conviction et Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy soutenir au niveau de Yewwi ñoom dañoo jàpp ne c'est une opération de liquidation d'un adversaire politique alors yow Papa Djibril euh, Fall alors lan nga jàpp au de d'aujourd'hui man sama conviction depuis le début ci prise de parole yi ma am yëpp c'était d'interpeller les institutions en question yi ci yi ko waroon a euh, yi waroon a tax ñu dëj wax ji ñooñu ñëpp ci seen responsabilité depuis le début c'est-à-dire que mooy la responsabilité de de de de du du judiciaire c'est-à-dire la justice ñu ne ko ñoo ngi koy xaar ci mu trancher de la façon la plus équitable possible donc euh, euh, bu fekkee ne ñi nga xamante ni nag dañuy dañu nekk ci opposition politique seen rôle la wala ñi nga xam dañu nekk ay soutien sax laay wax ñoom seen rôle la xëy na ñu jàppale ko ci ni nga xamante ni noonu lañ jàppe ne. loolu moo ci am doo ko soutenir ci ci ci épreuve bi. mais bien sûr man koo xamante ni nattu dal na ko bien sûr dinañ ci am dinañ am compassion pour moom empathie boo xamante ni loolu moom moo guidé d'ailleurs am sunu action politique de l'empathie mais dama ne am na ci loo xamante ni fi ci nit ñi di egg xëy na ñoom xam nañ ci loo xamante ni ñun xamuñu ko ci te ba may dugg politique dama wax ne du wax lu ñu xamut lépp dañ koy teg ci xam-xam ak itte ak teggin donc mën mënumaa ñëw di wax ci loo xamante ni aw ma ci xam donc xaw ma li li fa xew man xaw ko li ma mën rek mooy am une position de principe ne ñi ci war a ñi ko war a fexe ba sénégalais yi xam li xew nañu fexe ba sénégalais yi xam li xew kan moo tooñ kan moo tooñul waaye li nga wax léegi ci euh, kii de liquidation politique ci ñi nga xamante ni moom mooy le passé récent man euh, bi affaire Karim wadd bi amee ñëpp déggoon nañ suma kàddu ma ne juridiction d'exception la lii sunu sunu réew war na jàll li la preuve d'ailleurs ki nga xamante ni moom moo ko jiite woon muy le procureur Aliou Ndao tey ji je pense que ci adversaire yi gën a mag yu président Macky Sall la bokk. parce que ah, ah, àddina moo moo moo moo tëradi. moo tëradi ki nga xamante gis naa Aliou Ndao muy expliquer la procédure di appeler au respect de la de la de la procédure. alors que ñoom ñun dañoo ah. artu woon ne ko lu mel nii bul ci dugg. lu mel nii sunu réew dépassé na lii doomu aadama fi mu toll ci ñu ci ñu jox ko àqam weesu na lii donc position de principe boobu lañ ci amoon te tey histoire jox nañu dëgg donc liquidation politique. bu ñu leeree ci suñu bopp ne li xew jaarul yoon ñun dañ ciy taxaw euh, opposé ko ba mu mat sëkk bi xalifa Sall Khalifa Ababacar sàll bi ñu koy topp man ci ñi jëloon seen responsabilité ndax am na lu ma ci xamoon daal di wax ne euh, y a jamais un rapport de l'IGE qui demandait une information judiciaire à l'endroit de Khalifa Sall li amoon rek mooy dañ ne la caisse d'avance la façon dont elle est dëppootul ak jamono nañu ko yeesalaat bon saa te une brèche boo xamante ni le pouvoir politique daal di ciy dugg ba def liquidation justement de quelqu'un boo xamante ni jàpp nañ ne dafa doon prétendre à la magistrature euh, à la magistrature d'ailleurs pour li li prouver ne Khalifa Sall mënoon nañ ko bañ a topp mooy ñi ko fa wuutu nekkoon maire di dund yàlla na leen yàlla yërëm ñoom ñëpp dañu dem taxaw ci baar bi témoigner ne nii mu ko yore ñun noonu lañ ko doon yore kon bu duggee ñun nañ noonu ñun dañuy duggaale donc ñu gis ne am na ci loo xamante ni relance politique la woon bu ci taqrib d'ailleurs d'ailleurs gis nga ni léegi nag mbir mii nga xamante ni moom la ñu xew muy la situation actuelle Maïmouna li ñu daloon ci ñaar yee daf ñu dal mooy xam-xam boobu nga xamante ni amoon nañ ko ci lii dafa bari loo xamante ni da dugg nekk ci te xamuñu ko leerul ci suñu bopp moo tax ñuy ñaan ne ñi ci war a euh, ñi ci war a intervenir yépp ba mbir mi leer ba ñu xam li xew xam ki def xam ki deful xam ki ci dugal loxoom te waru cee dugal loxoom xam ki ci téye loxoom te waroon cee dugal loxoom mais loolu suñu ko xamee